yéen ñi ko bëggoon ak sina maanaam thé amaigrissement thé bii di thé minceur moo lay dimbali ba nga mën a wàññi sa yaram am poids bala neex ah dama ni gaaw leen gaaw ñëw découvrir si li nga xamante ni mooy thé amaigrissement bi leen seen xom indi thé bii nag dafa làmbool ay ngëneel bokk na ci thé yi thé lipide thé puer thé vert naturel ah jeexintal ya indi sa yaram amul benn effet secondaire dafay traiter obésité wàññi sa poids normaliser ko ba nga mel na la neex te nag si condition yu wóor ni mu gën a gaaw a gaaw la koy def ah mbokku gaawal gaaw yow mi yaram sonal foo toog di àppat ngay sentir ni nekkatoo à l'aise mu dem sax ba lay indil ay jeexintal yeneen jàngoro lu si mel ni cholestérol indi la ay graisse gaawal gaawu contacter madame Diagne si 77 127 19 53 77 127 19 53 moo la koy yembal ba nga mën koo jëfandikoo si li mu gën a gaaw a gaaw mbokk tey yii de di tee amaigrissement di lay jàppale nga defar sa yaram gindi say graisse dafa bari ay jeexintal ndaxte dina gindi stress dina traiter diabète hypertension nag moom moo ca gën dina wàññi sa cholestérol mën ba pare nag soo lekkee bëgg mu gaaw rees moo ci gën a gaaw lépp luy seere kit de bi di thé amaigrissement moo ci gën a ay boole kook nag ay loolu si éméro yi ah dama ni yile thé de xaw ma fu nu nekkoon waaye ku ci yem jàpp si xam ni nag booy wër thé ba agsi si kit de bi di t lipi thé puer thé d verre ay loolu si graisse di maintenir sa pression artérielle sa deret nag di circuler nu mu la neexee di renforcer sa système cardiovasculaire feebar xol moom dina la si musal renforcer également ni da ngay wér xel ndaxte bi la tee day stimuler sa cerveau boole kook nag da lay prévenir si cancer nee woon naa la tamit day wàññi cholestérol kii de tee bi di tee amaigrissement tee minceur boo ko bëggee wooteel 77 la ci madame Diagne si seen xom di ay produits bio produits yu efficace produits yoo xamante amul benn effet secondaire boo ko utiliser gis si njëriñ ba faw